بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة séparation boobu yàllay wut ci ndey ak baay te mu bëgguñu def ci jom mu di leen ko jox ci façon bu doy waar bu mata xalaat ndey bi jóg gaawantu doom yi gaaw leen gaaw heure école bi jot na daw leen gaaw ci douche bi dem def seen pat ñu daw jël seen brosse brosse fu ne waaw lu ne brosse gémmiñ gi parce que dañuy bañ seen gémmiñ am euh, feebar dañuy bañ seen gémmiñ am xet bëgg nañu fu ñu demee ci seen moroom ñu wekk leen mag mi itam bu xëyee suba bu miinul pâte dentifrice jël soccoom daal di soccu ba noppi bu ndekkee soccu bu añee soccu bu reeree soccu ni ko ko xale bi defee mag bi di ko ko defee ku ne bala nga tëdd def sa pâte dentifrice parce que lekk yi nga lekk ci bëccëg bi am na yu ca jóge takk ci sa diggante bëñ te boo ko fa bàyyee bu yàggee mu forox te bu foroxee te dindi wuñu ko bu yàggee mu ënnal gémmiñ gi te bu ënnalee gémmiñ gi koy waxal mu du mooyu moo tax ngay rey sa bopp ci socc bi di rey sa bopp ci cure bi di rey sa bopp ci pâte dentifrice bi di rey sa bopp ci bain de bi te buñ la ni moo gën baax nga dem jëndi ko yàlla nag wax la ci alquran ni la nag bi ngay respecté say moroom ci kaw suuf def nga ko mais bul fàtte ni léeg-léeg nga lekk sa yàpp moroom c'est extraordinaire bul fàtte ni léeg nga yàq yàpp sa sa sa lekk sa yàpp moroom mu des ci bëñ yi te doo ko socc te doo ko def part d'entreprise ba noppi bëgg a wax ak man nga defe ni duma dumooyu jëlal pat bi parce que ayuhibbu ahadukum an yakula laxma axihi mayitan fa karihitumuhu ni ngeen ko bañ a fële lekk sa yàpp moroom ndax jëw nga ko lekk sa yàpp moroom ndax ràmbaaje nga ko lekk sa yàpp moroom ndax fenal nga ko ba nga fenal sa boroom ba desiti lekk ya des ci sa bëñ nga ni dinga wax ak yàlla mukk fokk pat bi ñëw mooy njàpp mi waaw demal gàllax ndiku mais bul fàtt nit ci pat bi yaa ngi seet qualité aha bain bi yaa ngi seet qualité kon nag gàllax ndiku bi bi nga xam ni boo noppee wax ak sa boroom nay qualité moo tax doo jël brosse baaraam ngay jël ndax boobu yàlla ndax ku defe ni njàpp kese kese la xamoo lu xew sotti ndox mu jeex déedéet comme jaral na la lii nga dem pharmacie yépp lu fa nekk ci pat nga jënd ko boros bu ne nga wut ko yàgg sa waa kër yépp xanaa yàlla yit moom it xanaa bëggul dara hmm? moo tax mu di leen ko wax wa yajaaluuna lillahi ma yakrahuun lañu bañ فلي yalla neena mom lañ may sedd man وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون واو كي سوتشول دفو البات بي بغي مينيم ان كومو جوك nga daw tagante tax yalla neena tagante bobu nak bu ko upp amna te bi ngeen def sama diggante ak yéen ba lu ngeen bon la xëpp ma bu ngeen fenee xob xëpp ma parce que fen ngi paasewul wax lu amul ba noppi ni billaahi moo tax jëw jëw jëw jëw yonent beeg Sayyidatna Aïcha wax naa leen ko bii passé diw yonent bi am ku seet ci yonent bi rek ndax am lu mu doon leerlu ci daara génn sayyidatna Aïcha waay kii yee gàttu waay yonent bi ni ko jëw nga ko de mu ni li ma wax dëgg la mu ni li muy dëgg tax wax nit gannaawam luy dëgg loolooy jëw ni bu dul dëgg kay ëpp na jëw yooyu yëpp nag des ci ti lekk la yuy des ci sa gémmiñ te boo ko raxasul yaag yàlla du ngeen wax ba ci nga xëy rek jël sa noir fumé li ñu naan noir fumé wala verre solaire ah lii lan la nga ne jant bi di tey damay ragal rayon X yi ak rayon ultraviolet yi baaxul ci sama bët tax ma jël ay weer solaire ndax mu man ma protéger ci rayon yi et pourtant bis bu ne am na rayon yuy ñëw yoo xam ni moo gën garaaw rayon solaire yi te mooy ki nga jàkkaar lool xool ko bët bu mu la woon ni xeeb koo tax ba ba bu toogee ci sa wet nga ni lu mu toogee ci sama wet warul toog fii bët bi nga xool nit te fekk ni presque bañ koo tax buñ la joxoon tey paaka te nga sañ ko nga rey ko ndax bañ ko xool ba xool ba rayon dina ci jóge ci bàkkaar yu nga xam ni bu fekkul ñu protéger sa basira bu sa bët dee xoolati sa basira moom dootul xool إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور day yàlla nag nee na ni ngay reyee sa bopp ba wut ay noir fumé wut ay verre solaire pour mu protéger la ci rayon yooyu war nga wut yeneen ni lunette yuy tax rayon yële du mën a yegsi ci yow te mooy femm femm ba sa bët du xol lu mu warul xol do yebal sa bët mu teg ci kaw nit lu nga xam ni mook rey ko benn la boobu moo gën gaa moo tax yàlla di ko wax qul lil muminina yaxuddu min absarihim yenn xool yépp na yàllaa koy wax yenn xool yépp na kon yéen ñi ni maa leen fi bàyyi bu seen bët bëggee jàng ba jël lu ko warul gëmm leen waaw bu dee góor na gëmm bu dee jigéen na gëmm ndax xool bu ëpp la moo yóbbe borom baaxul te xam nga lan moo ci am mooy ñi jàng ci wàllu science di jàng wàllu mécanisme bët wala ñu koy jàng ci appareil photo wala ci ay caméra toujours image bi ngay xool bu ñu demee ba ci plaque bi ci biir image bi dafay juutu <laughs> lu am solo la li ma leen di wax parce que bu image bi juutuwul ci plaque bi li ngay xool du net mais booy xool nit xoolu bàkkaar xool boo koy naree gaañ loolu la wuteeg bii parce que moom it image bi ci sa basira dafay juutu mais noonu mu jiitoo ci bas sa basira noonu lay juutoo ci sa xol loolooy tax bu yàlla gaawu rekk sa xol gaañ la ndax yàlla nag di leen wax ni dee leen gëmm bët yi fu ngeen yégee nii mu ngi leen di bëgg a xooloo seen musiba ma leen bët yi waaw ba ca des mooy nopp yi su bu ne nga sax ah, waaw waaw sama nopp yi di dafa fàtt sama nopp yi xale bi de nañ may indil coton tige nangam nangam bu dee mag ñi nga gis mag mu jël euh, dunq di jur góotu ba dootu fi ne mu ne damay nettoyer sama nopp mais yàlla nee na am na bu des am na beneen nettoyage bu ngeen war a seen nopp mooy ngeen fexe ba fu ñuy waxe musiba nopp ba du ko fekke waaw mais bu dee fu ñoo waxe musiba yépp nga toog déglu ji ko te boo xëyee ni yaa ngi nettoyer sa nopp ndax danga bañ mu tilim fekk tilim na bu yàgg قلنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم بابو صح انتريسكو واي ولا waaye wala tajassasu waxu la sax nga tok rek ñuy wax nit nga dégg ko boobu sax garaaw na mais bi gën garaawate mooy ngay defal sa bopp yitte fu nit jëm nga bëgg lu muy wax nga dégg ko fu nit jëm nga topp ko pour bëgg a xam lu muy wax nga dégg ko mu ngeen toogee ci mbooloo sax eh, doo doo xaw a xam sax li xew ci mbooloo mi yaa ngay may nga naan dama may diw nopp dama may diw nopp la mu doon wax dégg naa ko kooku tajassus la xanaa bala ngay may nit nopp kay may yàlla nopp